dama am mën nag wax ci mbooloo maa ngi dagal ñaan ci jëf ak lu xam ku ne xam ne nii duma wax ci mbooloo waaye nag xëy na daa mënul ñàkk ndax front à suñu projet déggee oustaz di ko wax dama ne ci lay bokki te maa ngi jóge ba baax parce que ñun ñëpp amoon nañ sentiment ne am na lu xew loo xam ne ni il faut ñu ndax bu ñu jógul ah euh, mbir mi nu muy doxee nii dina xaw a sooxe euh, lu koy waxal mooy sénégalais yi dañu tàmbali di xëpp suuf di yàq loo xam ne lii c'est noble parce que ñëpp dañu xeex man mag laa xeexuma xëy na comme xale yi génnoon ci biir mais dama yabal samay doom ne leen dem leen ci xeex bi ne sama yaay ne ma ah ma ne xam ne li ngay def na ne ko bu baax

prend du du projet de photo c'est pour dimbali gouvernement son excellence le président M. de président ak gouvernement bi le Sénégal en général pour lui nga xamante de ñoom xeex nañ ko samp ko si nu mu si parce que man drastiquement c'est-à-dire un projet bii ñu indi pour moi ça doit être un projet étatique fait ak 100 ans peut-être une mise à jour moi mais du lu ñuy war a nekk dinaan dañ koy indiwaat yeneen turu projet encore man loolu laa parce que des gens ont travaillé dessus des cadres ont travaillé dessus nous avons de bonne foi donc loolu dañ ko accompagner respecter ko devons a ñun les acquis qu'on a dañoo war a continuer di seet lu gën a baax di yokk mais di commencer bugg a yàq et puis di di di di bugg a yàkkamti bu metti bi ñun ñëpp ñoo am euh, metti si li nga xam ne am na ñi nga xam ne ñoo ci perdre seen euh, vie ñi nga xamante ni ñoo ci am ay laago ñi ci ñàkk seen liggéey loolu yëpp metti na mais il le yi pour ñu am lii ñu am léegi bu amee ba pare ñiy soog a si ci pouvoir ñu commencer di leen sëkkatal nañ leen yërëm ngir yàlla ndax ay doomu jàmbur lañu am na noo xam ne ñii bu ñu ko doxalee kon tey duñ leen gisati léegi Sénégal xam nañ ne setagul ñu fi nekkoon ñun fi encore ñoom ils travaillent avec intelligence nañ leen bàyyi ñu liggéey ñu leen mun a accompagner en bien nag ñu def ko loolu tax front bi jóg ñu ci ndokkeel bu baax oustaz Assane mhm. li ci ndokkeel nag sama mbokk soxna yi magu Pastef yaa ngi nii toog vraiment toujours euh, disponible xam nga euh, loolu mooy Sénégal fii daal dama jàpp ne ñu baax rek ñoo fi nekk

Euh, on est à près de 300 membres mais gëm naa le front bi mun 5000 membres parce que Sénégal rôle de dafa fees si lu ñu xeex xeex ba sonn ñu bëgg ñu ko nag nasaxal si ay caaxaan yi neen euh, maa ngi wàcce sama kàddu voilà merci beaucoup et je crois que nous allons passer tout droit à la déclaration version française par euh, monsieur Ismaïla あの、あれのとこ、あの、